asalaamaaleykum da leen jàmm ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool tey jilee li leen gën a soxal mooy waxtaane ñu juróom benn liste yi nga xam ne ñoo nar a xëccoo ndakaaru ci local yu atum deux mille vingt 2022 dañu koy door ak Sud Quotidien di ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication bennoo Yewwi Wallu Bokk Gis Gis ñoom ñëpp daal la songandoo mairie bu Ndakaaru mbir yi daal di yomb dara bu ñu sukkandikoo suñu naataangoo yi di ñu xamal ne ngir teg loxo ci ville de Dakar bi nga xam ne lu am solo la ci wàllu politique ci Sénégal ñi nga xam ne ñoo ko yootu daal lu ne jaral na leen ko ndax ci juróom benn liste yi nga xam ne préfet bu Ndakaaru jox na leen ndogal ngir ñu mën a bokk ci élection locale yi bu ci mel ne bennoo Yewwi Wallu Bokk Gis-Gis Union Citoyenne bunt bi ak Sénégal 2035 juróom benn liste yépp daal ñoo nar a fas yéene taxaw temm ngir li ñuy yootu daal ñu mën kaa am bu ñu sukkandikoo suñu naataangoo yi fare ci avenue Bourguiba fukki fan ak juróom ginnaaw gi ñu yóbboo liste yi nag préfet bu département bu Dakar di Mor Talla Tine jaarale ko ci ab arrêté daal xam le ne ne ñan ñoo nar a bokk ci dëgg-dëgg ci jongante yi jëmale ci ville de Dakar ak lu mën a am daal xeex bi dana tar lool ci diggante juróom-benn yile loolu mooy gis-gisu l'info bi ñuy xamal ne Pape Diop daal dafa jugaat ngir yóotuwaat bopp mairie bu ndakaaru bi nga xam ne Soham El Wardini bi fa toogoon moom it daal dafa fas yéene dàbbaliwaat keneen it koo xam ne photo yi Soham Wardini bile soxal na ko lool mooy Doudou Wade bi nga xam ne daal moom la parti démocratique sénégalais teg yaakaaram PDS bi nga xam ne nag amatul doole ba woon ci ndakaaru ñu des ak waa l'info ba tey di ñu xamal ne Abdoulaye Diouf Sarr nag muy mbër Benno Bokk Yaakaar te lenn daal la ko soxal fi mu toll nii mooy mu ne ci boppu ndakaaru ndakaar boobu la it soxal lool Barthélémy Dias mu sax lool ci xolu ñiy yeewoo ci ndakaaru moom mi nga xam ne nag dafa fas yéene toppi tànk Khalifa Ababacar Sall suñu naataango yi dellu si ci taxawaayu Mame Mbaye Niang rawatina li Macky sàll bëgg ci moom ñu des ak Abdoulaye Diouf Sarr bi nga xam ne moom it dafa topp ci tonk Diop le maire bi fi woon maire bu Ndakaaru bu ñu sukkandikoo ci critique mu ñuy xamal ne Diop la maire nekkoon na maire yoof nekkoon ministre de la santé jiite woon na it kuréel bi ëmb maire yi nekk ci Sénégal di AMS ci mujjanteel ga nekk maire Ndakaaru dafa mel ne nag Abdoulaye Diouf saar ci tànk yooyu le la ne ñu des ak maire yu Yoff boobule te Abdoulaye Diouf Sarr ak Les ko bi nga xam ne liste parallèle bu Benno Bokk Yaakaar ngir ville bu Ndakaaru soxal na ko lool rawatina nag investiture yu doy yi nga xam ne moom lañ fa nemmeeku soxna Ndeye Sali Diop Dieng moom daal neexale nañu ko ñaareelu place ci ñi gën a jaaxal les échos nag mooy docteur Malick Diop ak maître Ousmane Seye ñoo jiitu kii di Seydou Guèye ñu wax ba tey ci wàllu élection yooyu lay rawatina ci Parcelles nii ak parti socialiste bi nga xam ne daal daa ber daaraam du wan moom daal ab liste boppam la taxawal ne Moussa si daal candidature am dule warul jàll benn yoon ndax nag lu ëpp tuuru nekk na fukki at ak ñeent ci boppu commune bi ba pare bëgg a defaat ñaar fukki at ëpp na lool info bi ñuy xamal ne daal xëccoo bi dana tar lool ci ñi nga xam ne ñoo ŋànk Benno Bokk Yaakaar ci Parcelles Assainies ndax kii di Mamadou Wane mi ngi dëkk bu baax a baax kii di Moussa Sy moo tax daal mbir mi du sedd dara ngir maire bi toog jamono yi ci Parcelles Assainies di Moussa Sy ñu fàttali ni ginnaaw gi nga xam ne listam dañ ko kaa bañal waa gëm sa bopp di coalition bi bu Bougane Gueye Dany jiite daal danañu yeggee mbir mi waa Cour suprême ñu waxtaane ba tey wàllu élection yooyu lee ak l'enquête dine daal donte sax nag seen liste yi dañu leen ko bañaloon ci mujjanteel ba ñu nangul leen ko taxul benn yoon mbir mi sedd ngir ñi nga xam ne ci ñoom la daloon ndax ministre bi ñu dénk wàllu biir réew mi di Antoine Félix Abdoulaye Diome mi ngi xamal préfet yeeg sous préfet yi daal bu ñu gisee loo xam ne leerul seen bopp bu leen neexee ñu yóbbu ko cassation ci jamono joo xam ne coalition Yewwi Askan Wi mi ngi soññ ay mandatairam nag ñu fexe ba am këyit goo xam ne daal mooy firndeel arrêté bi nga xam ne moo siiwal seen liste yooyu le bu ñu jógee ci coalition Yewwi Askan Wi ñu jàll ci coalition Benno Bokk Yaakaar rawatina ki ne ca boppa di président Macky Sall yëkkati ay kàddu démb fële ca Paris mu xamal waa l'Observateur nii kenn mënuma xoxatal nee na loolu sax mënuloon nekk balaa may nekk njiiti réew rawatina nag jamono ji nga xam ne nag buur yàlla si boppam moo a tànn teg ma ci bopp réew mi lee Macky Sall di xamal ay ñooñam ne nañu fexe daal ba local yi ñu jëm ñu def seen kéem kàttan ba am ci ndam ñu des ak président Macky Sall ak Le Soleil bi ñuy xamal ne sargal na juróomi doomi l'Afrique démb ca Paris bokk na ci bu Bougar Sarr ak Felwine Sarr bu Bougar Sarr boobu nga xam ne moom moo amoon raaya bi ñu duppee prix Goncourt ñu des ak moom ak laas bi jox kàddu waa Liba nga xam ne liggéeyam nag mooy jëm ci saytu lépp lu jëm ci wàllu mbindub téere suñu réew waa Liba di xamal waa laas ni Bougane daal lenn rek la ñuy xaar ci moom moo gën ci moom mu leeral ci dëgg-dëgg lan mooy taxawaayam jëmale ci borom ñaari tur yi ñu des ak Bougane Sarr ak kàddu yi nga xam ne moom la njiitu réew mi yëkkati jëmale ko ci moom nee na daal téere bi mu bind neex na ko lool ndax daal da kay fàttali ndawam keneen koo xam ne it génne ne ab téere duppee ko je mooy jaari sow les échos ni jaari sow ay kàddu yu tegginuwul daal la yëkkati jëmale ko ci askanu Sénégal ci jamono joo xam ne nag libération moom li ko soxal mooy waxtaane ñu ñeenti ndaw yi nga xam ne dañoo jóge fële ci Sierra woon ñu indi leen fii si réew mi te ñoom nag dañu leen ne dañoo war a sekk ay góor ñu fay leen xaalis bi ngir ñi nga xam ne ñoo indi fii ci Ndakaaru ñu mun leen rembourser seeni paas ñu jeexale kook wàllu tàggat yaram door ko ak sat di waxtaanee jongante bi nar a am ëllëg ci dibeer bi ci diggante Sénégal ak Congo ne daal lenn la ñuy xaar ci gaynde yi ñu fexe daal li ñu sumb ni le ñu jeexal ko ci anam yu gën jongante boobu soxal it waa record di xam ne ne gaynde yi daal lenn la moo war si ñoom mooy dalal xel yi balaa ñuy yegg ci Coupe d'Afrique des Nations record di ñu xamal ne waa Congo tey jii ci ngoon lañ leen di xaar ci Thiès démb ci Thiès nag sat di ñu xamal ne fukki gaynde ñoo teewe woon entraînement bañ fa doon amal ñu jeexale kook waa sunu lomb ñoom nag ki leen soxal tey jile mooy lag 2 ci jamono ji nga xam ne naataangoom yiy lëngu ci wàllu làmb yëpp am nañ combat moom daal dara leeragul Balla Gaye jot naa signé ñeenti combat Boy Niang Bombardier ak Eumeu Sène fexe nañu ba am ñaari komba Gris Bordeaux ak Tapha Tine ñoom ku ne si ñoom da nga sëgg benn yoon lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëy ndool ñu yendoog jàmm Bonjour. L'ICI liste en compétition à Dakar en vue des élections locales de janvier 2022. Tel est le sujet qui intéresse la presse du jour. Benno, Yewwi Wallou, Bok Giskis à l'assaut de la mairie de Dakar. Mortal combat en vue, c'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication informe que le contrôle de la stratégique ville de Dakar dans l'échiquier politique national est parti pour être un véritable combat de gladiateurs aux prochaines élections locales. Et pour cause, les six listes de candidatures déjà validées par l'autorité préfectorale, en l'occurrence Benno, Yewwi Wallu Bokk Gis Gis Union Citoyenne Buntu Bi et autres Sénégal 2035 ces six listes donc préfigurent des oppositions frontales entre des camps sur fond de rivalité et d'adversité ouverte entre alliés naturels le confrère de l'avenue Bourguiba signale que près d'une quinzaine de jours après le dépôt des listes de candidature le préfet du département de Dakar Mor Talla Tine via un arrêté a officiellement publié les listes des candidatures recevables à élection du maire de la ville de Dakar. Il s'agit de cinq coalitions et d'un parti. La guerre des six aura lieu, soutient l'info, avec Pape Diop qui est à la reconquête du paradis perdu et Soham El maire par défaut, qui veut garder son fauteuil. Autre prétendant à son fauteuil, Doudou Wade, qui selon le confrère est le joker du Parti démocratique sénégalais en perte de vitesse dans la capitale. L'info cite aussi Abdoulaye Diouf Sarr, le candidat idéal de Benno Bokk qui rêve de diriger Dakar intéresse également Barthélémy Diaz, surnommé le chouchou des Dakarois et qui suit les pas de son mentor Khalifa Sall. Mame Mbaye Niang est-il la botte secrète de Macky Sall? Ne peut s'empêcher de s'interroger le confrère. Restons avec Abdoulaye Diouf Sarr qui est sur les pas de Diop le maire, selon critique pour qui un maire en cache un autre. Diop le maire qui a été maire de Yoff, ministre de la Santé, président de l'Association des maires du Sénégal Maire de Dakar, sur ses pas, Abdoulaye Diouf Sarr présente un profil qui lui ressemble. Restons avec le maire de Yoff, avec les Échos, avec la liste proportionnelle de Benno Bokk Yakaar pour la ville de Dakar. Diouf et les investitures bizarres de la majorité. Ndeye Saly Diop Dieng, comme lot de consolation, hérite de la deuxième place sur la liste. Docteur Malick Diop et Maître Ousmane Seye sont devant Seydou Gueye. Parlons toujours des locales de 2022 avec Vox Populi qui titre ce matin sur Le Parti socialiste fait bande à part aux Parcelles Assainies avec Mamoudou Wane sur liste parallèle. Il déclare 14 ans à la tête de la commune et vouloir faire 20 ans. Cette candidature de Moussassi est celle de trop. Guerre entre alliés de Benno Bokk Yakaar aux Parcelles Assainies, Mamadou Wane défie Moussassi, informe l'info qui ajoute que ça risque de chauffer pour Moussassi aux Parcelles Assainies. A signalé que récalé Gëm Sa Bopp, la coalition de Bougane Gueye Dany saisit la Cour suprême au moment où l'enquête signale que le combat sera âpre lors des locales avec le rejet puis réhabilitation des listes électorales. Tout n'est pas joué dans l'affaire texte rejeté puis réhabilité. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, instruit les préfets et sous-préfets de ce pouvoir en cassation aux besoins au moment où Yewwi Askan Wi demande à ses mandataires de réclamer une copie de l'arrêté de publication des dites listes. Après la coalition Yewwi Askan Wi, place au patron de la coalition Benno Bokk Yakaar, Macky Sall, avec l'Observateur qui hier vendredi depuis Paris a déclaré personne ne peut m'intimider, c'était impossible avant que je ne sois chef d'État, a fortiori aujourd'hui que Dieu m'a mis au pouvoir. Le chef de l'État d'ajouter Soutenez les listes pour les locales et préparez-vous à gagner les législatives de 2022. Restons avec le président Macky Sall avec le Soleil qui informe que Macky Sall honore cinq fils du continent. À Paris, Mohamed Bougar Sarr et Felwine Sarr sont parmi les récipiendaires. Restons avec Mohamed Bougar Sarr, le lauréat du prix Goncourt, avec l'AS qui donne la parole à Waliba, critique littéraire et écrivain. Il déclare Mbougar gagnerait à clarifier sa position sur l'homosexualité. Restons avec Mbougar, avec Macky qui déclare « J'ai bien aimé votre livre qui me rappelle mon royaume d'enfance ». Je pars, c'est le nouveau roman de Diary Sow. On en parle avec les échos qui revient sur la vidéo pour expliquer ses tenants et aboutissants. Sow assume toute son insolence. Selon le confrère, la presse du jour revient également sur la levée du mot d'ordre de la Fédération nationale des boulangers avec Innocence Tamdiaye, la présidente du Haut Conseil du dialogue social qui lève le mot d'ordre. Quatre mineurs transformés en esclaves sexuels informe Libération qui revient sur cette affaire de proxénétisme, traite de personnes et faux sur des documents administratifs à Ziguinchor. Venus de Sierra Leone, ces mineurs, sous la menace et les coups, devaient entretenir rémunérés afin de rembourser les frais du voyage à leur bourreau. Terminons par les sports. Tout d'abord avec SAD, le quotidien du sport. Mondial Sénégal-Congo de ce dimanche. Le défi de terminer en beauté. Restons avec cette rencontre avec Record qui titre sur Les Lions pour se rassurer avant cette canne. Le confrère signale que les Congolais sont attendus à Thiès cet après-midi et SAT informe que 10 lions étaient présents au Calot à Thiès hier. Terminons par Sunulom. Zappé, c'est père copté. Leg 2 est-il fort clos Balla Gaye 2 a signé 4 combats au moment où Boignan, Bombardier et Emerson obtiennent 2 combats. un chacun, un combat. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.